ak mboolem jirit yëpp way mëna nek ñu leen di nuyu di leen siyar bu baax te di leen baalu àq di leen nuyu ci baat yu tedd yi di salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu leen di siyar te di leen baalu euh di di leen nemmeeku fu way mëna nek di na manti ko ak yéen ndax sun leçon yeen fi da ànd ak yéen muy laxdari yu géej géej naa ñëw waaye dara dafa am lu si tra lu fi traversé woon rek ay diggante yoo xam ne ay ay ngànt la yoo xam ne yu disoon na ci noonu lu mel ni sunu xalifa bi fi jóge woon Serigne Mor Kane na ko yàlla dolli yërmande ak njëggal ak xew-xew yi diine yu bari rek yoo xam ne boo ko dee lim day bari te bu si nekk mat na ngànt loolu moo waraloon euh, taxawaay doon xaw a am ci jamono yi di leen ndokkee rek ci bis yu tedd yi ñu nekk. ti weeru té di weeru safar nga xam buñ ko tuddé rek xel yépp dañu dem ci magal gu mak gi ñu jublu muy magal Tuuba muy bisub Seexuna khadim rasul bi nga xam ni mom lañu jublu tay ji ñi nekk ci safar da ay fan yu rek inshallah mu nekk fukki fan ak juroom ñet ci weeru safar inshallah allah dari dara yu baa ngi ci tambalé ci bisi di ñew ñu démarré waat ko incha allah delluwaat ca lan nan ko daa defee ñu jàngatante ko jàngalaat du ma ne ñu jàngale ko waaye ñu ñu jukki si lu ñu doy sëkk ci lu ñuy jariñ ci suñuy jëf ndax ndax dari borom téere bi nga xam ne wala yaxilu lahu an yafaala fi'lan xataa yaalama hukma laahi fiihi dëgganul ci mu kalaf muy jëf jënn jëf lu dul mu xamee la yàlla atte ci jëf ji ginnaaw xamul la yàlla atte ci jëf ji nag kon bu jëf jenn jëf lu muy seen daa xam la seen borom atte ci jëf joojee loolu moo waral ñuy lax dari ay ay la ay ay diggante yu bari ay buntu moo moo ci am su ko defee ñu jikki ko di ko di ko jàngante ci waxtu wu nekk bu ko defee ñu jukki ko ñu di ko jàngal jàngatante ci suñu biir ngir ñu mën a xam suñu diine ndax diine moom euh, componente lépp ci jëpp jëf jooy jëf la ca ak laab laaj la ca xam-xam laaj lépp nga jox ko ba mat loolu dafa war a bépp jullit ndax talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin loolu sang boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam sàkku xam-xam moom mooy xam sa diine sàkku xam sa xam-xamu diine ba xam ko farata la ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen loolu moo tax du mën a ñàkk mukk ñu jël téere bi jukki ci yi nga xam ne ñun daf ñuy arrivé ci bu dee ñi ci wàllu xayd wàllu ngàntal jigéen li nga tax nga xam bu ko dikkalee du mën julli moom sunu darsa ak ñaar xum ñu war ko jàngatante wat wa inshallah ci bis yi di ñew bu magal gi weesoo rek moy sun première leçon ñi diko ko jàngale ba téré bi jeex ci katan yalla yalla ñu ko yàlla fekkeloo ñu leen di baara wax nag dina jégalu ginnaaw bu ñu jégalu sunu borom bu ñu ndax l'islam moom xam ak xam la la xam ak xam la nak warta am ngant sax ak lu mën a xew nit ki bu amoon ngant la gën a rëy ci yaramam sax lu koy métti bu waree xam lu war na xam lu waaye su waree xamle it war na xamle salaaw sana dafa daan wax ne bépp jant bu fenk ba jant bi so bépp bépp dërs boo war naa ko fi jàng te jànguma ko ci looy xaman daf may xamal sama borom mooy dolliku ci ni ma ko war a xamee jand fenk ba jant so xam lu ma dara ci xam-xam boobee bis boobu yàlla bu ma ko fekkee loolu njàngale mu rëy rëy te comme dund gi lépp dund gi àdduna lépp dafa laaj xam-xam kon nit ki war a noppalu waxtu wu nekk war nañ dolliku ci xam-xam si gont bu ne war nañ dolliku xam ndax ay jëfam dafa bari nit ki li muy jëf lepp lu sene dafa la dafa am ko ci diine tek mu war ko xam lool nag taxnu kon motax mo ni ngant war ta am waye nak euh, comme yalla dogal na ñu am ko rek ñu koy jéggul seen borom te dinañ dinañ ko jéggul tay fasiyene inshallah allah bi ci suñu kanam ñu woyal ko muy gën yaatu di woy safar gi euh mi ci xel ñepp waye na ci àdduna tali ak ab diko waral. mooy borom Tuubaa Xaadimu Rasuulillaahi dafa wax ni bis boobee di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu di ko wax 18 safar mooy màggalu Tuubaa saa yoo xam ne ñëw na koo xam ne sama mbég sa mbég la na nga ñëw ci bis boobee sant la si ma yàlla ndax bu ëllëgee yomal xiyam lu ma sama borom ci bis rek danaa ko bokk ak koo xam ne sama mbég sama sa mbég la nag loolu moom benn jullit amu ci ngant jullit yëpp ñoo ko war a ndax mbégum jullit bu nekk mbégum mbokkum jullitam la al muslimu aqul muslimu jullit bu ne jullit mooy mbokkam تواختسموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا تإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم كون جودي جيب بس بي كونسيرني نيم نيم نيت نيب صاح نيت كو نيت نيت لا واي جودي جودي جودي سامبوك جودي واي نك راوتني مريدي نك نيوم خاصة وإلى جميع المسلمين عامة kon bis boobu loolu moo ko waral ah, la sabab bis bi nag ba loolu juddee ca sëriñ bi jàngale na ko borom xam-xam yi jàngale na ko ngi ci téere yi mi ngi ci historique yi di fi jóg incha allah bis yi dana bis yoo xam ne dana tànn émission yoo xam ne spéciale pour safar rek la ñu waxtaanee màggal gi lu ko waral lu tax mu am. lu waral borom bi sant yàlla ci bis bobé ak bind nako ci bis bind bu leer wax mako ma ko wax na ko xarajtu yowma sabti zamina asar li xidmatil muxtaari fii sahari safar mun man serigne Tuubaa génn naa kañ nga génn mo ne bisab gaawu bisab gaawu la genn sama kër génn sama dëkk génn sama rew ci wer weer la woon mu ne fii sahri safar ci wer safar wer safar wer yi fukki wer ak ñaar la mi ngi tàmbale ci muharram ci atum judit mooy wer wee ñu génn fii sahri safar weer wi mu amee fukki fukki fa ak jurum ñett ci la génn lan moo taxoon nga génn lan moo ko génne woon lu waroon excel bi ni dara ya. du commerce du njëggi du sakku ji xam-xam du mën dox دار دار لتخ مجن سمريو لمن لخدمة المختاري غير لجيل يرنت بين خان مملي على تنه تدك المختار مي مصطفى مي منتقى مي مي متبا مي المختار أي توري بري بري يرنت بين خان تنه مختار مم لك كوني تنه كوك لك مولا دون لجيل في سهر سفر تير سفر ليه am ay jaayante yoo xam ne nag da ko jaayante woon ak boroomam am bëgg-bëgg yu bëggoon ci ay maxamaat ak i ngërëm ngërëm yi yàlla ngërëm yi ahlu badrin bokk ci ñoom bokk ci ahlu badrin badar ba mu amee ba léegi junni ak ñeenti téeméer yu teg ca la badar amoon ah ñëw ba ci jamonoom nag mu bëgg a bokk ci ñoom سنبرو خاملكو لولا آه. منو تلا أمنا بفكر جمعنا بابو تسير دونو دول أغنيم تبادر لسي تحب بوك موي نعي فكر جمعنا يلا تبص لا تبص لا بوك تسير هاي فكر بادر نخيخ نيرالا با نداري بندار يعنى كسيد فكر وديمونا جوجو وعي مني di waxante diggante yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam di waxante ñoom pour nu mën a def ba bokk ci rek ba mun naa goo ci ni loola lu mënatul a am la mënta nekk mu ne waaye ndax lu ñuy jaay la waaw ah, suñu borom ni ko waaw mu ne waaye jënd naa ko jënd naa ko maanaam lu mën a doon ni ndigg la rek bu ñu ma ko tegee attan naa ko ma mën a bokk ci ñeneen ñu won ko njëgg yonente bi sallallahu alaihi wasallam ci jëhëran xamoon nako ni ni li ma lay wax nak ma nga amee won ci dëkkum bu tedd ba ca Touba bobu excès bi amugul bobu la sanc Touba ba am fa juroom ñaari at yu tek tuuti rek ci bërëb bu tedd bu neex Daaru khudus ci la doon defé xalawatum bu yàgg bobé ba sallallahu alaihi wasallam sallam ca la ko feeñoo woon indil ko garatu xurbu samaan Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nettali na ko borom xam-xam yu bare bare ci yoon murid nettali na ko Cheikh Mamadou Basir Cheikh euh, Ahmad Lamine wax na ko ca Irwa un Nadim foofu la amee woon waxante bu yàgg yàgg yàgg yàgg ci diggante sëriñ ak yonent bi sallallahu alayhi bi ak borom ñoom ñett ñëpp ñu seq jataay bi ah mu ne waaye dañuy dañuy jaale ñu ko waaw mu ne jënd naa ko ñu xamal ko ne ko day yan la boo xam ne natt la yoo xam ne maqaama bii nga bëgg ku dul yow ci gaa yi yàlla yi gaa yu baax yi gis na ko bëgg na ko lool yittewoo na ko jaral na ko jóg waaye ban ko wane njëgg mooy natt yi lay def dafa reculer dafa dellu gannaaw ndax loolu dafa dafa métti ku dul yow waxaale nag waaye nag dafa suñu bi ne daal man nan mako yene atanako xamal nañ ko ne yan la bo xamni ken musuko mësu ko yëkkati ci sey wum ta ke wara yene yene yenn ko taw ba ci kaw ta natu yene la ci tegit natu yu day war la miti miti dun la natu natu kaam furi dun la nat natu borom xam-xam dun la nat natu wadi yu natu bu yenente la leen natt yéen tegu net natt yenente moom leen waye seigne touba ci jom ci fit ga ci bëggam nga ci maanaam ci rëy bët ga nga xam ne la mu séen muy maqam bu rëy ci boromam war a jéggi maqamaat yépp bokk ci foofa fàttaloo na ko lu métti lu mën a doon pas-pas boobu moo moo rëy pas-pas te seen borom daa bëgg borom pas-pas bu rëy seen borom daa bëgg borom yitte ju kawe xam nga yitte ju kawe mooy man naa def li def li am rii rek su ma amee ni baax na des des ma amul problème déedéet da ngay jàpp ni bu doon ci wàllu am-am dangay war a séen ñi ëpp li ci àdduna nga war a dox jëm ci yitte a tànnoon bu doon wàllu da nga war a jàpp ni ñi sut ci guur yàlla ca nga war a séen yitte ji tànnoon nga am ko nag am ko doxe ko jëfe ko inna laa taxaala yuhibbu maaliyal umuuri wa yakrahu safsaafiha suñ borom dafa bëgg. borom yitte ju kawe waaye dafa sib borom yitte ju suufe lool xam ne jàpp na bu añee rek day na ko sëkk dafa dafa yomb man de su ma amee reer añee reer am ko a moom dafa sa yitte ak ah man su ma jullee woor su ma jullee naafe rek day na déedéet jàpp na yow daq jaam yàlla yaa war a yàlla war a dàq jaam yàlla kon daa mel ni timis a ngi bëgg jot mm. kon dana ci ñëw ci ay bis yi ñëw ñu gën a waxtaane safar waxtan yaat bu sa yaat ci dëgg la la ci jande ko sant baax di nuyu seen borom kër gi assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf bismillahir